gàmm ngi day daana neex lool waaye ren daa alaa ma ma àbb kàddug sëñ Mansour ga dafa alaa ndax famille bi yëg na ci la bokk sëñ Mbàkke ndax daanaa fi ñëw man dong jamono ya may jàng dawal yor sama Mercedes ba dawuma ndali kenn ndax mënuguma dawal di dem bam yàgg ñu ne gàmm gi ren sa daara ja leen ko dippee ndax bëggal nu tuyaaba ni nga ko waxee léegi sëñ Bakk ñu daan fekk fii góor gi ba ñëw mu wóote tëdd fële ca dëkk ba nu toog fii di ko gàmmu yàlla na ko yàlla defal man sànn sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man amila biha yàlla na ko yàlla defal loolu bëgguma jaar ci nga jaar léegi waaye bég nañu lool ndax tuuti kon gàmm gi yàqu ndax jenn waaye daf maa xaw ma mi ngi fi mu dégg néew ma xawma fu daaru gay nekk waaye maa ngi mbambi loor mu ne ko foo jóge mu ne ma ngor waaye maa ngi laajte fan la fan la daaru gay nekk mën ne ko leen gis ko ma daal di xëm waaw ndax loolu <laughs> dafa rëy gàmm gi nag li tax mu daan neex tey neex ba léegi mooy ñun suñu cérémonie mooy parce que gars yi ñu wax cérémonie officielle léegi comme doom doo ngoy daara yaa ngi fi sëriñi daara yaa ngi fi ah cérémonie officielle dëggantaan ah sëñ Maodo waaw waaw ah nii nag la mag ñi daan def ba réew mi ñépp bëgg yonent bi nii rek lañ daan def ndax bi tubaab bi ñëwee ci réew mi su fekkutoon mag ñu mel ni sunu mag ñi du nu jig réew yam dem te amul sunu mag ñi jigu leen waaw mag ñi xam ne bu tubaab bi ñëwee bëgg def njabootam sunu bàyyee mu def nu njabootam bokkut ak ba mag ñi jógee taxaw def ñu njabootu yonent bi tubaab bi ubbi école am di ca jàngale ndax mu def nit ñi njabootam mag ñi ubbi daara di jàngale alquran ngir def nit ñi njabootu yonent bi bu nu jàngee daara ba ngoon jot walla guddi jot walla fukki fan ñaar ci weeru gàmmoo jot walla walla ñu nit ñu toog ñu wax leen kooku nga xam ne ku ko sopp topp ko ko topp raw ku ko sopp ku ko xam sopp ko ku ko sopp topp ko te ku ko topp raw mag ñi tànt rek ba réew mi yépp sopp yonent bi xam nga lu xew senegal léegi dama bëgg am Muhammad laaj ko jigéen ñi loolu de moo xew léegi man de deux mille deux mille quinze ak léegi li ma fi tudd ci ay bébé Mouhamad y a beaucoup de bébés il s'appelle Mouhamad ab liste la <laughs> tudd nga ci de oustaz Nguer nee na tudd nañ maa la ko wax jeexantalu njàngale mag ñi la yu nu jaare ci tànt yi moo tax ba werante we amee nañ ko def ak ñu ko def mbokk mi yëkk ci na ko léegi xaw ma dem naan déet alaa dama ne bàyyi leen coow li alaa dama ne bu leen werante alaa dama ne déglu leen ma alaa dama ne attention lu xew mu ne azimu moo tax mu jiital alaa door ne azimu lu ñu màggal mu ne laylal wilaadati ñun dong mu ne déedéet xisbatan yéen ñëpp fu ngeen dégg nu woote ko dem leen ah waaw fu ngeen dégg nu woote ko rek dem maa ngi lay nekk li suñ barke léeg-léeg bi his diyaadul minnati jës bu yi mbokk mi doon yëkkati léegi ma lay dee naa laa ka neex ndax mag ñi li ñu bind niñ ko def buñ ko defutoon du saf waaw ñuy def ko ba mu am li ñu tuddee tarannum tarannum non yal yàlla fayal ñu leen léeg lu njëkkati génn xasida rek man xaw ma nag kuy jàngale daaj yi loolu moom affaire la ci man fentub daaj yombul ñëpp xaw ma nag nu gaa yi def ba di ko fent di ko daaj waaye moom c'est très bien bi ñuy dugg si noo ngi fekk gaa yi nekk ci ba yutu maam Alxaaji Maalik woowu nga xam ne ba mu ko yëtee góor gi Abdallah ca Kawlax def na ko ah si sa téere bi day baax na ndax na ko ay sa bayit wii li ma taseeg moom bëriwul min kulli wasfin xamidin xaaza afala tafdilin rajaul baraya mu ne ko sa bayit wii li ma taseeg moom bëriwul noonu la mag ñi def nag sëñ Bakke ba nun ñëpp nu sopp yonent bi dama am sama benn jarbaat bu ñu wax Zeynab Faal nekkoon rajo dunia kero bi mu wàccee Madina nga xam ne ren la njëkk a aji euh, audio bi mu def dama ne ku fekk bu fekkoon am na karjaag du ñëwaat senegaal waaw ndax lim doon yëg bi mu siyaaree ki ñépp bëgg siyaaree audio ba mu ca def ah loolu mag ñee ñu ko faggul ci yii yal na yàlla fayal ñu leen góor gi Ahmed Gaye fii leen ko daan fekk du dugg ci néeg fee lay toog boo nuyoo bu la sant wa nga ne ko nangam mu xam ne ñëwoon nga fi daaw mu leen na waa kër ga daañu ma nga fii ah yaa ngi bëgg a diis de <laughs> léegi bëggu noo fàggul lu baax tax mu ñëw ba ci ruq bi ndax balaa tëli ak télé di agsi mu defar njaboot gi looloo tax mag ñi dugg ci ruq yi gis nga fii xaw ma enclavé ngeen di wax xaw ma waaw xeet dafa enclavé mag ñee ko ci jublu ah boo demee Tiwaawan doo dégg ñu ne ak jagsaaw ah, amul ak jagsaaw ci Saalum am geneen am geneen am aynu maadi nga dem Tuubaa dégg daarul xuddus daarul mannaan daarul rahmaan am de daarul wahaab léegi mag ñoo bëggoon dugg ci ruq bi balaa tee ak tee bi ak si ñu defar njaboot gi ndax tëyi ak télé ak téléphone ñetti tee yooyu dañuy sënkurul ñu si seenub liggéey te bu liggéey bi nekkul lu ijaab yi nekk salbi loolu moo waral góor gi ñëw ci roqos yi def fi lii lu mu am rekk def ci yàlla na ko yàlla fayal di woote nag nit ñi di ñëw mu ubbi daara xale yi di jàng nii gone yi jànge léegi la fi ay gone nekk yoo xam ne noonu lañu mel ñoom mbaa ñu raw leen jàngalekat yaa ngi sama ndeyjoor su mag ñi masaana def nii nag ñu ñëw ñu waxtaane ak bokk waxtaane ak bokk liñ bokk dangaa jox léegi gone bi sëñ Mbàkke ne ko bisimilah jàngal mu jël aw saar waar na ndax daf ne yàlla nee na seen mun-mun ji doy na laa xayra fi kathiirim min najwaaw yàlla nee na pénc mi mun-mun rek ku ne yaa ngay dee sa morom dama ne nangam mu ne doy na dara neexuma ci suñu yàlla mu ne suñ mun-mun ji daal dara neexuma ci xanaa ñett ñett nee na kuy déyanteeg sa morom fexeel ba bul génn ñett yi amara bi sadaqa amara bi sadaqa illa man amara bi sadaqa nekk ak nit saas nger ba mu yàgg nga yëg ne saas nger kat am na oto waaye fi ne li muy dox ci ay métier liggéey kaat kaata baax ci moom nga daal di fekk ku mel ni Alioune Ndiaye sosaat nga ne ko kii jar naa jëndal kaat kaat mu jëndal la ko yàlla na ne boobu moom sax na ma <laughs> amin de yàlla ne boobu saf na ko te dafa war a bari moom ngay waxtaan ak sërif de mu ngoog sëriñ Cheikh naan lu amul seede baaxut illa man amara bi sadaqa nga gis koo xam ne jekku na ko ak ku ko jëkkuwul nga coordonné seen diggante ba ki ko jekku jàppale ki ba mu jekk ko sunu borom ne buubu saf na ma de illaa man amara bi sadaqa aw amrin bi maaruf wala aw maaruf bu ñaar bi mooy mooy njekk njekk nag dafa bari moo gën a yaatu sadaqa njëkk dafa bari mooy lu di def buñ koy waxtaane doo sëgg doo ne waa ji doy na moo tax dafa bari fi ni nit booy wax boo koy bàkk boo koy bàkk bokkut ak boo koy xas bee boo tàmbalee gaale wax doy na nag bañ mu ëpp bi ci mujj islaax bay na naas defar diggante nit ñi yàlla ne boobu sax na ko boobu la lislaam di wax ne même boo fenee baal naa la même boo fenee islaax bay naas ñi may déglu ci waxtaanu fajar yi fan yee dama doon netti li benn géwél bu am ñaari géeram ñoo bokk ndey ak baay te duñ ci ñaari géeram bokk ndey ak baay te duñ tuddanti ba muy fukki at ak benn duñ tuddanti ku ndaw ka may géwël ba biyëb màkk mu jël billet ba dem yët ko mag ja ne ko sarak jël may billet bi mu ne ko billet lan mu ne ko mu ne billet mu ne ko waaye waxal waaye mu ne ko musuma laa wax lu dëgg sa rakk ji moo la may billet màkk mu ne yàcc mu ne ko man nag su ma doon yow du mu ëpp ngor ak jom lu ma jàppoon danaa ko bàyyi sol sama daal dem na ko jaajëf su ko defee soo demee ci yéen te doo ne labbayka yàlla na la labbayka ko jaajëf mun la jaajëf ne ko noonu laay def ba nii nii waaw li wolof naan kott jub na <laughs> mu ne ko ban bis ngay dem mu ne ko samedi laa fay ñëw géwal ba dem ca ki ki mayoon bii ne ko sa mag ji day nee na daf lay nuyu si mu ne ko sama mag jan mu ne ko diw suñ bàyyi bàyyi bàyyi kaf mu ne waaye maa la ko wax nee na daf lay nuyu si samedi lay ñëw man nag su ma doon yow ku ma am danaa la woo ca nga ca loolee hmm. mu ne ko noonu laay def fekkee moom mooy jóg di ma fekk man rakk maa ko war na fekki mu ne ko mukk nee na ma lay fekk samedi jot ke wuti otoom ay xaritam àndandoom ay am di jàmm ba gi yëpp wut si kër kii géwal boo ne kii moom tam wut ay xaritam àndandoom am di jàmmam ñëw toog di ko xaar ba kee waaxoo ba na tëll kii jóg géwal ba jóg ne ko soq mi ci balloo ga barke ji mi ci ñaari suq mi ci balla bu markee ji mi ci ñaane waaw comme ñoom ñaar ñoo bokk ndeeg bàyyi tagg leen dugal ci maam day yomb ñu laxasoo jooy bi nu noppee nag frère bi ne ko bi ñu bi ñu waxtaanee ba juba ba nag frère bi ne waa ji géwél bi lii de yaa ko def mu ne ko man mieux dégg naa fenn yàlla koy jéggale mu ne ko waaw mu ne ko kaay may la benn billet mag comme maye nga bee dama lay may benn may damay am benn ñu ñett ñëpp ñooy ànd aji mag yii la mag ñu doon def sëñ Mbàkke bañ ñun ñëpp ñu joxante loxo defaroo ko ah lii rek la woon yàlla fayal ñu leen njaboot goo xam ne gii tàmbali nañu lii yëg nañ ne waajur wa nga xam ne moo tàmbali woon ña ngi koy defal sadaxa jaariya sadaxa jaariya yàlla yonent bi daa wax ne yéen ñi ñëw àdduna ku fi bàyyiwul ñett ku fi bàyyiwul ñett boo demee doo am dorateur doo te boo laajee télévision yi sama gaa yi xam nañ ci dara ñii waye ka ndagar wala ka taasu boo boo boo defee benn taasu benn taasu da dem ca ña yor loola waa biyaas dee ne leen taasu naa aw taasu nu mu tudd yi ma ca ñaawaay léegi ñoom ñu bind ne diw sàngam indi na fii taasu yi ba ca ñaawaay ba léegi nag rajo bu ko teg wacca la fa fukki dërëm ak juróom-ñett boo amee fukki weer ak ñaar mbàkke dem ci rajo yépp ku ci nekk ñi la teg nañ ko fi juróom-ñetti yoon sa xaalis baa ngi nii kii fukk yoon ak ñaar sa xaalis baa ngi nii kii fanweeri yoon sa xaalis baa ngi nii bu ñu ko boolee du xaalis rek ah, ñun ñi rek lañ ko dul defal maag Mor Thiam daxal dugg rek sama kàllaay ba salaam <laughs> ndappee mu ne Mor waxtaan bi neex na jërëjëf yàlla na yàlla fay fa la yem kat <laughs> ma tax léeg-léeg ma dab ci ci ab ustaas ci gars yi c'est-à-dire ndànk na la yéegal oto bi kat nun noo ko moom <laughs> nun ustaas yi <laughs> kon wëruma romb ab de booy wàcc ma làmb su ma dajee dix mille muy sa su ma ko dajee mille cinq mille wala yàlla nu yàlla yërëm nun ustaas yi dëgg la ne alors dégg nga Mbàkke yonent bi nag mi yàlla yónni woon te jamono du ko dab sëñ bay yeex yeex samp fi ñett door a dem ustaas ngeen samp fi ñett door a dem iza maata al abdu inqataa amaluhu illa min ñett ñooñu nag boo ko fi bàyyee nii taaxuraankat bi di amee ci BHDA dara mun nga koy ame yow moo gis ngeen fa saawi Cheikh El Hadj Malick bi nekk ca Dakar seetlu ngeen ko fi ne soo ko amoon def ko centre commercial 2018 nga dund foofu bi de ba 2038 ñaata ngay am lu bari ngay am bu de ci xaaj yii waaye moom Cheikh El Hadj Malick dafa xeeb sunu xaalis yii ndax sunu xaalis yi yan fadu xaalis bële baaqin maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baaq sunu xaalis yi boo yore yorew dix mille mbay oustaz mbay euh, boo fi yoree dix ci jëndee ndaamara cinq mille looy dese cinq mille waaye bu dee ci xaalisu sunu borom boo amee dix mille yëkkati cinq mille ba def ca ca daara ja def ca jàkka ja ba léegi dix mille nga am mu ngi mel ni soxna Fat Diallo mu am quarante mille dem ca banque ba dénkaane fa vingt mille yor ci posotam vingt mille ñaata la am quarante mille li ngay joxe ci yàlla di ko joxe ci yu mel nii loolu la yonent bi junj dina ko jàngal mu ne ko fi jóge na fi bàyyi ñett ba ca jiitu mooy sadaqa jaariya sampal daara gasal teen sampalub dëkk jëmbatal garab rëddal aw yoon ak ak ak yooyu boo tëddee ci sa biir bàmmeel am ku ñëw toog ca garab ga dóorub la wala coupe deuxième sunu borom ne sa garab ba nga jëmbatoon daaru gay am na ko fa ataaya tey ba bëgg na léegi trois mille cinq cent yii mooy fayam trois mille cinq cent yàlla nag ah moo tax soo seetloo sëñ Mbàkke boo rombee Jurbel di dem di dem Tuubaa hmm. loola ci sa ndey càmm jumaa ja ka defoon fi ne ñaata nit ñoo fa jullee par bu fekkee ku ne dana ci am 3500 loolu ñaata ca 1800 la woon 1800 boobu am ci indépendance allahu akbar loolu la mag ñi xamoon sëriñ bi soo seetloo fii ak li ngeen ci xam xam ngeen ne sadaxa jaar yaa ngoog am déet sadaqa noonu mu daan defee sadaqa jaari nag la daan la daan defee sadaqa waaxifa sadaqa waaxifa muy sarax baax na bi léegi la ko waa ji di lekk fii dégg nañ ba tàyyi ci nettali góor gi ci dundam bu ñu ne ko kii mooy suñ mbàkki si mooy waxtaan ci rajo bi daf mu woowal leen ma ko famille bi xam nañ loolu sëñ Mbàkke ñëw ma la yaay sëñ Mbàkke si nga am ne dégg naa ko góorgóorlu lu mu ne waaw mu ne la ñaata soxna nga denc nga ne benn mu ne ci nga yemam boo leen déet mu defale loolu waa Tunisie xawal léegi Tunisie réewum Tunisie dañuy sponsorisé ku bëgg a ñaareel te kat ci ginnaaw at yële buur gi baa def ne woon ku fi ñaareel ma tëj la déggoon ngeen léegi su ma taaloon sama portable bi ngeen gis ci cinq article yu bees tàq yu jóge Tunisie nee nañ góor gu bëgg a ñaareel état ba moo lay jàppale sponsorisé lañ nga ñaareel article un article deux ku am deuxième femme troisième quatrième deuxième beeg troisième ak quatrième danañ am soldu bu toll ni fonctionnaire ba nga xam ne moo gën a néew soldu ci dëkk ba trois troisième deuxième femme da koy am troisième am ko quatrième am ko neel ñaar ñetteel ba góor gi ne man du ma ñaareel ci benn laay yem danañ ko alamaan xaaj bañ koy alamaan dañ koy jox góor gu bëgg a takkum ñaareel dégg nga ba noppi ne ko ñaari at moom ko góor kooku su ma taalee sama wasa danaa ko def sama statut ngeen gis ko dégg nga jigéen ji gàllankoor jëkkëram ba du ñaareel moom dañ ko tëj ak suwaay ndax yàlla góor ñi takk si lu fit ah waaw loolu la góor bi doon def fii boo ñëwee ba mu laaj la ndax ci benn bëgg yëpp nga ne waaw mu continuer waxtaan boo ne boo ne damaa bëgg a ngeen waxtaan su noppee nag mën a la looy dépense oo ah bët bu sedd ma amee 4000 jàll ceeb looy soxla suukar looy soxla diwlin looy soxla bu noppee daggal la ko ak weer bu jot bu ko yónni wul kee sant gay ñu yónni ko ustaas mi ñu yët la ko nga ne waa li lum doon mu ne ku baax ku ne ku baax le dara dee ko bokk ak moom ndax akala taamukumul abraar wasalaam aleykumul malayka ku baax kum lekk saw ñam nga baaxle ñi xam nañ ci liste bu rëy lañ ci xam waaw jeex na nee na bëri na ci kilifa yi diine ñu wax ne naa ci moom lañ ko njëkk a xam naa kon bu fi bu fi nekkoon jamono yi gone bu war gone bu sawar bu ñu wax waree kon danañu wari ba tàyyi <laughs> am gone bu sawar ñu wax ko sama kër waaw wari gone bu sawar la loo ko yónni rek mu indi ko te kat soo ko demee jëli mu ne ka ko yónni woon jot na ca moom xaw ma koo xalaat waaye kooku da def contrat ni mbàkke wax nga dëgg jaariya mooy loolu ilmun yuntafau bi xam-xam bu ñuy jëriñoo seede yaa ngi nii ndey joor xam-xam bu ñuy jariñoo góor gi yàlla dafa def dafa amoon xam-xamu économie xam-xamu yaxantu ci xam dara xam dara fi ba Tambacounda Mbacké rek tàggoo bu dul tàggoo man nag genn ñaan rek la mooy yal na yàlla defal seeni mbir defal suñuy mbir te def ci suñuy poos daal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa yal na yàlla fay la waxtaan wi am na solo lool tey bari na lool luñ ci mën a jàng loolu am na solo lool yàlla na yàlla defal la tawféex li ma waxoon bi ma lay ubbil tuddee Ali Imran gàmm gi daf cee yokk waaye gàmm gi sax gàmm la woon naka jekk waaye nag loolu day wane ne rek ñi ngi ko séqal it xam nañ bu baax li nga séq ak ñoom mooy la yal na yàlla gën a rafetal diggante yi Euh, ni ñu ko baaxoo defee nag mooy bu ñu ñëwee ñun joxe suñu wàll muy waxtaanu diine yu ñu am ci ngoon gi buñ ci noppee nag delloowaat kilifa yi kàddu yi ñu wéyal jotaay bi ndax bu ngeen seetloo oustaz a ngi wax yeneen gis ne am na kilifa yu ñu ñu leen di dalal kon day tegtale ne bu oustaz noppee taxagul jotaay bi jeex am na beneen jotaay bu ci bu ci war a topp boo xamante ne moom la mbokk yi di waajal léegi bi seex ñëwee toog dana oustaz daa mel ne day ma ne ko waaw mu ne ma déet moom na waxtaan ma ne ko seex ci ngoon ba léegi ñu ngi wax ji xam nga comme danoon jëli gan ñi dem ak a ñëw léegi nag mi ngi door a bëgg a toog déglu la fekk nag ñun tam waxtuwaa ñi door a bëgg a jeex xam nga loolu kenn mës donc jotaay bi am na solo lool li nga wax ci ku faatu bàyyi fi ñett yi ko amal njariñ góor gi moom ñett yëpp mën nañ koo gis ci ab jotaay tàmbalee ci doom yu baax ba àgg ci eh, sadaxa jaariya ba àgg ci euh, jëf yoo xamante ne dafay des di jariñ ñi nga xamante ne ñoom la ko jëfaloon jëf yooyu yëpp dafa nekk jëf yoo xam ne yu am solo la yal na yàlla barkeel ko te barkeelal ak njabootam ginnaawam الإسلام والكفر مع أرزق من ضم وبقى نصيحتي لكل سمحة